السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينبع البيان والتبيين من الجزائر ويبدو أنك ينبع فعليم جنغة ما من يبت اللاجي وما بغى اللاجي ما يكن يخمن سنية دفع خي أم جنغة آه، ما خم دفع بولو ولا دفع دفع دفع جنت بحكوكو بيه ومينن كمو فيرد آه، ولا مينكوكو ñaareel bi mooy euh, juróom-ñaari mbindeef yi ñu wax ne ñoom duñu dee juróom-ñaari mbindeef ñoo ñoo ñoo ñi nga xam ne wax nañ ne ñoom duñu dee ak euh, fukki ñi nga fukki fukki saxaaba yi nga xamante ni euh, yonent bi da da defal na leen àjjana ñett laaj yooyu daal lañu la ñuy laajte siyaare waa kër macha allah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 mbokki albayaan wa tabyin maa ngi leen di nuyu di len ziar di ndokkeel ñëpp di ñaan borom bi tabaraka wa taala boole ñu defal tawfiq ñu am mbégte kontaan te àndaat ak yéen ci tontu laaj yi laaj bi nag xam naa rotoon na fi te jotuñ ci woon tontu ki nga xam ne dafa jana ba kooku faaw mu jàpp faaw mu sangu euh, pour mën a wirdu pour mën a wasifa su fekkee dafa am ngàntal sangu faaw mu tiim pour mën a wérd pour mën a wasifa kon faaw mu laab moo xam laabab ndox la wala laabab suuf su fekkee laabab ndox la laab suy wasifa du jàng jawaratul kamal daf koy wëte ñaar fukki salaatul fatih ñaareelu laaj bi mooy ñi nga xam ne dañuy dund te duñ dee ñooñu moom man xawma leen li yàlla jàngale ci alquran mooy ñeppay dee ba ci kay borom xam-xam yi ba ñu uh, firee aaya bi wa nufixa fi suuri fa saayiqa man fi samawati wal illa ma sha allah ñu ne ma sha allah mooy juróom-ñetti malaaka yi nga xam ne ñooy gàddu arash ak jibril mikail israfil ak azrail ñii ñooy illa ma sha allah waaye wax nañ ni sax ginnaaw gi ñoom dañuy dee suñ borom subhanahu wa taala dina leen rey uh, am na nag ci ñu mel ni siyaa yi ñu ngi jàngale benn xadis boo xam ne dañ ciy wax ni am na beneen aalam yeneen nit ñu bokkut ak doomu aadama yi yuy dund foofu ñu sukkandikoo sax ci wa yaxluqu ma la taalamuun ci alhamdulillahi rabbil alamin ak yeneen aaya yoo xam ne moom lañuy ñuy dëgërloo waaye nit ñu du moom man loolu xaw euh, maa ngi sàkku yi tamit ku xam mu jox ñu ci xam-xam euh, waaw mbokk yi ma am lu ma rectifier foofu tuuti rek ci li ma wax ni ki nga xam ne eh, dafa eh, jàpp ngir wasifa dafay wëttee jawharatul kamal gi ñaar fukki soasul faat yi loolu njuum teg làmmiñ la li ma bëggoon a wax mooy ki laab laab ak tiim koy wëttee ñaar fukki salaatul faatih sëriñ bi ñu ngi lay nuyuwaat ñu amoon nag laaj gis nañ ne daal ci mm, tijaan yi daal suñuy wasifa ba am na fu ñu toll rek danañ danañuy firi malaat moom wasifa mu yaatal ko daal firi ko danañ ko ibbi mu yaatu loolu tamit bëggoon nga indi ci leeral daal mm. dafa mel ni sax am na ci ay wutee ci diggante tijaan fii ci senegal ñii danañ ko am na fi ñu toll danañ ko firi am na ñoo xam ne feneen lañuy ñuy toll firi ko maanaam ñii ci laa ilaaha illallaah bi ñii ci jawharatul kamal bi loolu tamit bëggoon naa nga indi noonu ci leeral ndax loolu euh, su fekkee laaj bi mos na fi ñëwit man dégguma ko waaw en tout cas daal bëggoon nañ ko indiñ ci leeral euh, ñaareel laaj mooy li Cheikh Ahmad Tidiane wax ni sama taalibe bi su ngeen ko joxee sama wirde bi na ngeen jox na jox sama diggante ak moom jëg boobu lu mu yundu maanaam ndax sëriñ bi la jox tariqa eh, di sa sëriñ ngay jokk nga jokk ci moom nga ne feneen gis ki beneen sëriñ boo xam ne it ci tarix la bokk nga xam ne kii de tabaarakallaa su ma jokkoo ci moom daal dina gën a am euh, bénéfice daal nga am nga droit dem jokk ci kooku te réewul nag kala jox tariqa yépp yow sa sëriñ la waaye am nga droit dem jokk ci kii ngir sàkku yokkute ci moom ba mën laa jox lépp loo xam ne sëriñ mën na la ko jox ci tariqa bi ndaxte loolu mën nga ko wala nga wala nga gis koo xam ne sëriñam kat gëj na ko gis lool ko jox tariqa parce que léegi kat gis na beneen sëriñ bu ko boo xam ne kat gis na ne lépp lu mënoon am ci sëriñam bële wala lu ko raw mën na ko am ci kii moo mel ni ku jox ko ci kii léegi terewul nag dana xam ne am na ko terewul nag am na ko ko jox tariqa xam na ko fonk na ko waaye nag ci kii la gën a jokk jamono ji ndax loolu moom eh, lu ci eh, Mawlana Cheikh wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Taha Niang maa ngi lay nuyu di la ziyaare bu baax di la ndokkeel di ñaan borom bi boole ñu defal tawfiq waaw ñun de gisaguñ ci benn téere ci téere tariqa bi fu ñuy jàngalee nañu malaan ak wasifa bi bu ñu wasifaa ba ci nangam mu per ci lañ koy tàllal wala suñuy tàmbali lañ koy tàllal wala suñ demee ba ci jawharatul kamal lañ koy tàllal loolu jànguñu ko liñ jàng mu leer mooy <clears throat> Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu bu daan wasifa daan na laal malaan ci njëlbeen bi sax daawut ko def waaye fiñ daan wasifa ndax du ñuy soog a dem faas moom ak taalibe yëpp ci buntu kër gi boobu amaguñ euh, zaawiya bi amaguñ euh, parce que zaawiya bi ci buntu kër gi lañ daan wasifa nit ñi di romb mu lal fa malaan bi ngir gàllankoor nit ñi fay romb loolu moo doon cosaanam loolu lañ ci xamoon dem nañ nag wëru yàlla lépp lu mu def rek barke def ci rot dem nañ ba gis ci yeneen njëriñ yeneen barke ba borom xam-xamu tariqa bi wax ci lu baree bari waaye per nangam lañ koy tàllalee de loolu suma koo gis man waxuma ne amut waaye gisaguma ko ci téere tariqa yi ma jota a liir yëpp musuma ko cee gis amma nuñ koy defee fii ci Sénégal ñii ci laa ilaha illallah buñ demee ba toll ci juróom-ñaar fukk wala lu ko jege ñii dañuy dem ba jawaratul kamal ñu tàllal ko ala kulli xaal buñ ci mënta def rek dagan na ndax dafay nekk sunna boo xam ne sunnal fi'liya la sunna soo xam ne dañ ko roy ci suñu mag ñi nga xam ne ñoo ŋànkoon tariqa bi ñu di ko def kon loolu sunna suñ mën a roy la ñu ci mënti roy rek ala kulli xaal baax na comme niñ wutee ci xaylatul jumaa ñii di wax laa ilaha illallah rek ñii di ko booleeg allah allah buñ ci def day wér wallahu taala aalam eh, sa ñaareelu laaj bi mooy yeeslu boobu ngay wax ak ci kan lañ ko war a def nit ki bu sëriñam génne àdduna muqaddam bu mu yaakaar rek mën naa dem yeeslu ci moom sartaluñ ko ne ko taalibe bu mag bu sëriñ bi la wala taalibe sëriñam wala nangam ak nangam loolu du charte même bu sëriñ bi di dund sax moom bu gisee ni am na lu mën a yokkoo feneen te sëriñam amu ko war naa mën a dem yokku loolu war naa mën a dem yokku ji ci loolu euh, ndax tariqa bi moom tënkuñ kenn li bañ kay mooy nga féewaloog sa muqaddam ci kaw di ko xeet wala ci kaw nangam ak nangam loolu moom moo dul jaadu du dagan benn yoon ci tariqa bi amma bu dul loolu nag nit ki mën naa jokk ci ku ko neex koo xam ne yaakaar na ci moom xam-xam boo xam ne amut fi ne ni ko waxee nag tey noonu la amee ñu ci bëri ci ñun diw moo la jox tariqa tijaan waaye ci diw nga mujj jokk loolu lépp li koy waral mooy xër yi taalibe xër bi taalibe yi xër ak bëgg bi nga xam ne taalibe yi bëgg nañ ko yàlla te euh, léegi daal ñi nga xam ne ñoom lañuy tuddee sëriñ si yàlla daf leen di nattoo ñàkk jot yàlla nattoo leen xam-xam bi nekk ci ñoom duñ ko mën a joxe maanaam duñ am jot buñ ko joxe bu ko defee nag ndaw lu bëgg xam-xam du toog foofu di tardel boppam day jugee foofu dem wuti fu mën a amee xam-xam ngir yokku ci yokku xam-xamam ànd ak ni nag dafa war a jox cër ki nga xam ne moo ko joxoon tariqa bi ndax kooku mooy sëriñam ci tariqa bi wallahu taala alam salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yaa oustaz Mouhamed Assane am fukk assofi ngi amoon benn laaj buñ doon laaj bëgg kuñ ci dimbale doon laaj ne xanaa Seydina Cheikh askar yi nga xamante ne yaa ko wax yëpp mu ko daan jëfandikoo ndax moom daan na am benn temps boo xam ne ci laamisoo la koy def maanaam di ci laamisoo nit ñi ak yooyu dafa mel ni boo ko déggee temps bi da doon jeex tàkk tàkk tàkk ndax daan na disal dara ci temps waaw wala yëpp day def yi bis yi mu def ko bis yi wala yëpp bis yëpp benn benn bis bu ne def ko daan jëfandikoo waaw ndax ñun xam nañ ne xaw nañ ci lot lool ci yu demee nii yëpp lay nuyu bu baax di la di la ñaan yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Seydi Cheikh Adama Seck maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziyaare bu baax waaw Mawlana Cheikhu Tidiane radiallahu anhu yitteem yëpp ci diggante nit ñi ak yàlla la ko séddale lépp luy àq yàlla daan na ko joxe ba mu mat waaye lépp luy àqi mbindee fii daan na leen ko jox ba mu mat sëkk moo xam njabootam gi la moo xam taalibee mi la daan na laamisoog nit ñi daan na jàngale xam-xam daan na dimbali nit ñi daan na liggéey ngir am lum dundee moom Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu kon e, e, tey bum la jaaxal luñ waxee awraat yu bari yépp natt ko rek ci li siira di jàngale ne Ousmane Ibn Affan dafa daan jullee witar kaamil bi yëpp te tey ñun buñ ko bëggee def lottu ci lool kaamil bi yëpp benn rakk loolu mayla bu leen yàlla mayoon defal leen ci ak jagle te duñ ci yàgg sax mi ngi mel ni tey yow ba nga commencé di jàng salaatul fatihi bi maa dina yéex lool ci sa làmmiñ waaye dinga dem ba wirdu laazim boo koy def noo yéex yéex yéex yéex yéex du passé juróomi minute te am na jamono joo xam ne boo koy def dina dem fukki minute fukki minute juróom ndax boobu làmmiñ bi tàmmagu ko mbir mi loo ciy gën a dem rek yàlla di la ci may xaasiya kon noonu la demee woon rek ak Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mañ moo am bayaan wa tabiin seen mbokk muur mbay mool mi mool ñu ngi jël suñu yóbbu suñu sëriñ al Mouhamad Mouhamad Assane Mbaye Mouhamad Assane Mbaye moom fukki suuf yi ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy siyaare ñu koy ñaanal jàmm ko sàkk ci moom ñaan yal na yàlla may ko fan gudd wax ak wér yal na yàlla jàmmal ko jàmm ak njabootam jàmmal biirum jàmmal bitim wax dëgg yàlla kontaan nañ bu baax ci leçon bi ñu ngi koy déglu wax dëgg yàlla am na ci kontaan bu baax a baax yal na yàlla def ñu dégg ak topp ñu ngi nuyu bo suñu biir suñu mbokk taalibe suñu mbokk suñu lépp alaja Adama Seck yal na yàlla may ko euh, fan gudd ànd ak wér yàlla gën a dëgër taxawaayam wax dëgg yàlla mu ngi am taxawaay ci bu baax a baax ñu ngi sant ñu koy gërëm ñu ngi nuyu maj moom bi yëpp dañaan la ñëpp jàmm di sàkk ñoom ñaan fàttewuñu kenn euh, am benn laaj bi ñu doon laaj rek ci euh, leçon bi njëkk sëriñ bi da wax ci ay askar ixtiyaar yi mel ni ci tariixa bi ma am ñu ci dégg nag mu wax muy asma oy drisiya ak daal ay dahri yi am na suñu wax daal ne il am banque koy jëfandikoo il faut nga am ci ndigal loolu nag xamoon maanaam léegi ñu laaj ba xam euh, yow mi nga xam ne jël nga tarixa bi am ahsaabul awraat ndax yi mu wax noonu yëpp am na si bëri man yaakaar naa mu ngi ci ahsaabul awraat nga dem si sa sëriñ ne ko dama si bëggoon dama si ñaan ndigal pour nga may si ko jëfandikoo mu léegi mën naa may naa la si ndigal ci euh, téere bi nga jëfandikoo ko léegi nag euh, boobaa dana doy ci nga mën a jëfandikoo lépp lu am ci téere bi wala day aaju xam-xam am yoo xam ne moom il faut ko mën a jëfandikoo il faut nga dem ci ko ci ndigal wala déet waaw ak itam fatiha bi mu wax noonu ne eh, moom itam eh, il faut balaa koo jëfandikoo nga am ci ndigal mooy tax man mën koo jëfandikoo yooyu daal lañ doon gën gën ci ak leeral eh, daal luñ ci gën a luñ ko gën a mën leeral mu leeral ñu ko ñu gën ci a xam ni ñuy def incha allah ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi seer ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullah sayidi cheikh Modou Mbaye maa ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax di la ndokkeel di la ñaanal yàlla waaw awraadul ixtiyaariya yi yépp dañ ciy laaj ndigal benn boo ci bëgg jëfandikoo da ngay dem nga laaj ci ndigal man ngaa boole yépp nag nga dem laaj ci ndigal bu fekkee namm ngaa jëfandikoo yépp ñu joxal ndoola ci ndigal benn yoon nga mën a jëfandikoo yépp waaye kenn amul droit di def tasarruf ci li nga xam ni moom mooy awraad ixtiyaariya yi te du dañ la ci jox ndigal loolu Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu wax na ko ci jaar maan yaakaar naa dina ñëw ci suñu dars bi di ñëw incha allah kon bépp boo ci mën boo ci mënti jël rek ak bu mën doon dañ la ciy jox ndigal ngir nga mën koo jëfandikoo jërë jëf aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ma ñu euh, bayan wa tabyin ci mbokk mbër mi moo delluwaat rek ci kii laaj bi mu doon laaj dafa euh, bu ñu dégg sëriñ bi wax ci dars bi euh, te it xamuñ nag fu mu nekk ñu noonu biñ kii dañ ko laajaat mooy salaatu dawdi bi may wax noonu maanaam fekk mën nañu baaxee fan la nekk ak itam ñu koy doxalee ndax ñaan bu am solo la wax dëgg yàlla xanaa taalib bi mu ne war na ko mën a jëfandikoo te ñaax na ci taalibe yi يقول لا دال نيو مانا باخي ني ديف با خام فمو ولا ني كو مانا ديفال سي درس ولا دال ني كو دال نان دال مو فيرال ني كو مانا ني كو مانا ان شاء الله لول نول لير وسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمه الله واو الدور الاعلى نك يا كان نيكول سي احزاب واورات واي ان شاء الله دينا دينا دوغال تاكسي في ان شاء الله بو سوبي الله حنا دينا ان شاء الله واو ñun nag loolu juróom-ñaar yooyu ñu waxoon ne du dee dañ ko dañ ko mës a dégg dañ ko mës a dégg waaye nekkul loo xam ne mos nañ ciy teg suñu bët ñuy déggoon ne duñ dee mooy xaras ak kursi ak laxul maxfuus ak xolam ak ruuxu ak haawiya ak aljanna yii la ñuy déggoon ne duñ dee te ñoom ñëpp ay mbindeef leen te ñun li ñu xamoon te fas ko suñu xol mooy lépp rek lay dee yàlla rek des loolu la ñu jàppoon loolu la ñu gëmoon waaye nekkul loo xam ne mos nañ ci teg siñ te eh, eh, mosuñ nañ mos nañ koo gis daal ci téere loolu gisuguñ ko lu ñuy dégg la rek moo taxoon ni du ko dugal di si sàkku ak leeral yooyu daal la ñu waxoon ni tuddee ñun nag moo si si teg siñ eh, lu tax ñu dugal ko dañoo ci kii ba xam maanaam dëppoo naag lu amagum wala dëpp incha allah ñuy ziare waa kër yëpp aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu bi ñu ngi lay ñu ngi lay ziare baax waaw <clears throat> xam naa laaj bi niñ ko laajee wala boog ñun niñ ko déggee moo bokkut ak niñ ko foogee woon maanaam ñun liñ foogoon mooy ci mbindeef ak yàlla yi maanaam ñi nga xam ne yàlla jox na leen ñuy dund ñuy ay doomu aadama am na ci ñoo xam ne duñ dee loolu lañ yaakaaroon nga wax moo tax ñu tontoo noonu waaye juróom-ñaar yii nga wax boroom xam-xam yi wax nañ ci boroom xam-xam yi wax nañ ci comme ni nga ko waxee nii boroom xam-xam yi wax nañ ci jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waa majmuu albayaan wa tabyin ñoom ñu nuyu di leen ziyaara di ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla téel ñu sunu ngëm sàmmal ñu sunu pas-pas bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu bu baax a baax a baax di ziyaara di jaajëfal bu baax a baax al mufakkir suufi cheikh mohamad hasan bay ayadaka allahu wa nasarak bi jaay sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam ñuy am mbégte bu baax a baax a baax ci dars yi ñu amoon nag benn laaj laaj bi laaj mooy dañ jàngoon ci jawaarul maxaani ci groupe bi mooy ñeenti xaqaayiq yi am mooy xaqiqatul ahmadiya xaqiqatul muhammadiya xaqiqatul xilaafa ak xaqiqatul ahadiya ñeenti xaqaayiq yooyu bi ñuy jàng dars bi ci duratul xarida ci xadaraat yi nga xam ne Cheikh Omar Fouti Taal mi ngi koy cité ci rimaax ci juróom-ñaari xadaraat yooyu dégguñu ci xaqiqatul ahadiya ak xaqiqatul xilaafa bëggoon a xam te foofu euh, leeraloon nga ni mbindeef du fa tooge xilaafa loolu ku fa tooge xilaafa yi ci ñeenti xaqaat yooyu xilaafa majaas yi nga fay tooge léegi nag ma bëggoon a xam Eh, lu tax xaqiqatul eh, ahadiyatu ak xilaafatu xadraat yi kenn nekku fa wala maanaam man maa desee dégg dars bi jàll salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu salaam wa rahmatullah sëriñ bi maa ngi lay nuyu maa ngi lay bu baax xam nga xaqaayiq yi moom ñeent la duñu yokk duñu wàññeeku موي حقيقة الذات بيرم لا أحد ينك حقيقة المحمدية حقيقة الأحمدية أك حقيقة الخلافة لول دون سبتك لولو أمر حقيلة دون سبتك موك حقائق يوينك بوكو يبو بالنسبة للحضرات نت لايدون دوتو أحدية دوتو آه، محمدية دوتو ahmadiya dootoo wax xilaafa waaye da ngay ne xadaratul nubuwa xadaratul wilaya xadaratul xilaafa mu représenté ñetti xaqaayiq yi muy xaqiqatul muhammadiya xaqiqatul ahmadiya ak xaqiqatul xilaafa ñu ne kon ana xaqiqatul ahadiya ñu ne foofu am fa place ndax fam nekk mbindeef amu fa dara amu fa luñ fa mën a ràññee kon li muy bëbbal ci biiram la bu amee pay itam payam amut benn wàcc maanaam amul njëriñ boo xam ne mën naa génne dara léegi nag bu ko defee nag ba nga xamee ni tanazul am na tanazul ba mu amee mooy wàcc ba mu amee ñu mën a wax ni xaqaayiq yi bi nisbati lil xadaraat ñett la ndax xadaraat yi nga xam ne juróom lañ muy xadaraatul xaqiya alxamsa bokkut ak xadaraatu sabaa yi nga xam ne mooy almustafida min bahri barzaxil baraziq bokkut xadaraat yooyu haahut la laahut la jabarut la malakut la naasut la lépp loo fekk ci haahut boo demee ci malakut fekk ko fa lépp loo fekk ci laahuut boo demee ci naasuut fekk ko fa waaye jabaruut moom dong moo taxaw di kenn gàddu lépp nag fi mu wàcc nag ñu di ko fa gàttandoo muy péyam bi foofu nga xam ne foofu lañ koy tuddee barzaxul baraziq foofu yi muy bëbbal muy juróom-ñaari xadara yooyu nga xam ne wax nañ yàgg nañ fi wax ni ahmadiyatu moo njëkk muhammadiyatu ci azal foofu lay taxaw maanaam li yàlla di sotti yépp jëmm ji koy gatatu mooy xadratul ahmadiya boobu muy wax mooy xadara bi ñeel yonantu bi sallallahu alayhi li jugee ci moom nag mu koy bëbbal mooy li ñeel mboolem yonantu yi noonu lay def ba wàcc ci ki nga xam ne mooy euh, barzaxul baraze muy mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu ginnaaw loolu nag mu wàcc ci ay taalibeem ginnaaw loolu mu wàcc ci yeneen kilifa yi ginnaaw loolu mu wàcc ci kilifa yeneen taalibe yeneen kilifa yi bu ko defee nag ñoom ñooñu kenn ku ci nekk bëbb gi am ñu ngi jugee ci euh, géeje ki nga xam ne mooy barzaxul baraze euh, yaakaar naa daal ci tënk pour bañ a gën a gën a yaatal bañ a gën a xuus ci mbiram baatin mën nañoo taxaw foofu wallahu taala alam xam naa al oustaz man am naa benn laaj xam naa laaj bi sax jëmut ci wàllu wàllu tariqa waaye dama doon laaj uh, li ñuy wax suufi yu maanaam lu amoon jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam wala ndax tur yi rek moo wala tur yi tamit feeñoon na bu fekkee ci jamono yonente la amoon ñan ñoo ko taxawee woon maanaam ci ñan la feeñee woon ñan ñoo ko doon dund waaw ndax damay dégg ñu ne jën jamono yuñ tubaab alayhi salaatu salaam am na ñu doon tuddee ahlu suffa dem loolu lu wér la tamit euh, ñan ndax mën nañoo xam seen tur wala xam ci ñenn rek ak lu waraloon ñu leen doon wax ahlu suffa. salaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bi ñëpp di ko fi baax te di ko ziyaare di kontaan baax ci xam-xam yi taar yi muy balal eh, ñu naan baax a baax yàlla dool ci barka ñaareelu laaj bi rek mooy Mawlana si Ahmad Tijaani radiyallahu anhu ba eh, ma doon laaj rek ndax am na leen ci ay taalibam yu àndoon ak moom daal di jigee ay nu maa di faas nga xam ne ñoom dañoo gàddaayoon ànd ak moom ci digal ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ndax ba muy liggéey aynu maalik daal di ñoo sax ci gàttal àndoon naag lenn ci ay taalibam ñoomit ñu gàddaa ànd ak moom wala moom ak waa njabootu bopp njabootu kër waa waa këram daal ñoo fa ñëwoon ñaar la ñaareelu laaj bi loolu alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama taslima يا همة الشيخ احذري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي البيان والتبيين ما ينو ينب دلن ديار سرين بما ينو يتلاج بو أمسارو بينا لاج موي تصوف نخ أمونا كي جامون يننتو ولا بعد بي نخ أمونا دنيو هني نيو تبري دني وحني باتو تصوف ñu mujj ñi ñoo ko sos waaye loolu dafa wuuteeg liy dëgg ndax baatu tasawuf xam nañ ko lu jiitu lislaam di ñëw moo tax bu ñu interroger taarix euh, dañuy gis ni tasawuf ak suufiya lu fi nekkoon la duut loo xam ne dañ koo sos nekkoon na fi lu jiitu lislaam sax di ñëw boo demee ci téere bii ñuy tuddee kitaabul lama nga xam ne al imaamu tuusi moo ko taalif mu ngi ciy leeral mu ngi wax ni boo demee ci téere bu ñuy wax axbaaru makka solo nañ jëlee ci muhammad ibnu yasaar ak ñu dul moom ñu tudd ay xadis yoo xam ne liñ ci fësal mooy lu jiitu lislaam di ñëw makka dafa wéetoon ci jaamukatu yàlla maanaam toog nañ jamono joo xam ne gisuñ kenn ku fay wër kaaba gi mu ne benn waaye bu jugee fu sori waaji suufi la niñ ko waxee wa kaana yajiu min baidin rajulun suufiyun fa yatuufa bil bayt wa yansarif mu ne benn waaye buy jugee fu sori da daan ñëw waajooju suufi la kon baatab suufi ñëw na lu jiitu lislaam mu ne waajooju nag <clears throat> dafa daan ñëw wër kaaba gi bu ko defee mu dem ñibbi loolu benn la kon loolu tegtal la ci ne lii kat euh, lu jiitu lu jiitu lislaam nekkoon na fi kon li nga mën a déggee ci wax jooju mooy lu jiitu lislaam ñi fonkoon jaamu yàlla ñuñ leen daan tuddee suuf yànke ñoo xam ne dañoo tënku woon ci millat ibrahim muy benn bu fe boo boo bëggee ci li may wax noonu masdar boo delloo ci kitaabul lame di nga ko fa fekk boo delloo ci masdaru tasawuf fil islam yi bi Cheikh Mouhamad Hisam Sultan taalif di nga ko fa fekk moo tax ma wax ni bu fekkutoon tur wi xamuñ ko woon konoon duñ ko askanalee waaye soosu nga xam ne fu sori la jugee te waa ji mandarga biñ ko ràññee mooy wër kaaba gi te xam nañ ni wër kaaba ci woy njëkk ak woy mujj yëpp màndargala la ci mandargay jaamu yàlla te jaamu yàlla mandarga la ci ñi nga xam ne ñooy boroom ngënali ci ñi nga xam ne ñooy ñu baax ni kon tasawuf firiwut lu dul ni koy gaay di firee jikko jikko yu baax yi ànd ak setal xol bi sellal jaamu gi ngir yàlla subhanahu wa te loolu mooy liñ ñu alquran digal wa ma umiru illa li yabudullah muxlisina lahu din kon loolu lu am solo Euh, loolu benn la ñaareel bi mooy soo demee ci téere bi ñuy tuddee arisalu saafiya idris al iraqi radiallahu anhu moo ko taalif mi ngi ciy wax ne baat boobu di tasawuf wala suufi baat la boo xam ne amutoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi waaye ginnaaw gi lañ ko sos sos moom mu sukkandiku nag ci awaariful maarif mu ne wuute nañ ci baat bi ci ay anam bi ci njëkk dañoo wax ni ci jamonoy taabiina yi la xew ndax liñ solo jëlee ci xasanul basri mu ne raaytu suufiyan fi tawaafi fa aataytuhu cheyan lam yaxudhu wa maayi arbaat wa dafa e, gis benn suufiyanke ci màkka ñuy wër kaaba gi mu jox ko dara ci alal kooku ne ko li ma yor doy na ma da ngay gis ni wax ji ñuy wax ak wax ji njëkk a wax méngoo na ci ne suufiyanke bi mooy jaamukatu yàlla bi kon loolu lu am sol boo demee itamit ci suufiyanke yu njëkk yi ku maanaam ci borom xam-xam yu njëkk yi ku mel ni Sufyaan Sawri moom mi nga xam ne dund na ci e, xarnu e, yu njëkk ya ndax xarnu saan yi ci lu dund ndax ñu génn àdduna cent soixante et ci gàddaay gi suma juumul Sufyaanu Sawri moomu ñëpp xamoon nañ ni xujja la min xujjaji lislaam moom waxal na boppam ne su nekkutoon kii nga xam ne moom la ñuy wax abul hisaami suufi konoon duma xam lan mooy sew sew ngistal xarnu bu njëkk boobu ñëpp ñu ci bëri ay suufiyanke lañ woon ñu mel ni ibrahim ibnul adhum abdul wahid ibnu zayd ñoom ñëpp ci xarnu bu njëkk boobu lañu dund niki noonu boo ñëwee ci taabiina yi ñoom ñu ngi noonu ñoom itamit loolu lañ dund léegi nag ñu ne lu tax ci jamono yonantu bi gars yi wooweñu leen suuf yi ñu leen di woowee sahaaba ndax jamono jooju ñu tuddee leen sahaaba yi moo gën a nekk tedd nga ndax àndante biñ ànd ak yonantu bi salallahu alayhi wasallam taabien yi ne itamit seen jamono ñu tuddee leen taabien yi maanaam ñu topp ci jamonoy sahaaba ndax moo gën a méngoog euh, jamono jo ñuy dund ak ngëneel li ci yonent bi sallallahu alayhi suma sallam wax xayru quruni xarni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum bañ demee nag ba loolu yëpp weesu nit ñi seen ngëm yàlla di wàcc eh, àdduna di leen dugg mu am ay nit yu beru <coughs> nit yooyu nag bañ beroo ñu beru ci jaamu yàlla ñu daal di leen di tuddee ay suuf yi kon da gis ni tur wi nekkoon na fi lu jiitu lislaam ci xabar boobu nga xam ne rotal nañ ko ci axbaaru makka ñu jëlee ko ci muhammad ibn yasaar euh, nga gis ni waa ji ñëwoon di wër kaaba gi tuddee nañ ko suufi te lan la def dafa dundalaat sunna su dee woon mooy jaamu yàlla ci màkk kon loolu benn la imaamu Shahruudi nag lam wax ne tur wi amutoon ci jamono yonentu bi sallallahu alayhi loolu dàquwante wut ni tur wi amoon na fi lu jiitu jamono yonentu bi sallallahu alayhi ndax mbir mën na fee am te du siiw kon ñàkk a tur wi du tax ñu ne amutoon euh, moo tax boo bëggee boole ñaari wax yi dangay ngay tur wi nekkoon na fi lu jiitu saxaaba yi di feeñ lu jiitu taabiina yi di feeñ waaye siiwutoon ginnaaw ba taabiina yi ñëwee nag la tur wi siiw comme niñ ko jiitalee eh, ci lu weesu kon laaj boobu loolu lañ ciy tontu wallahu taala alam waaleykum salaam wa rahmatullah waaw Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu gàddaayam gi jugee Abi Samaun jëm Faas muy gàddaay nga xam ne fa la fa toogee àndoon na ak ay nit kay àndoon na ak ay nit bokkoon na ci ñim àndaloon Cheikh Sidi Alin Harazim ak waa këram ñoom la àndaloon ci tukkeem moomu